Bienvenue sur Salam Vision. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen gërëm leen sant suñu chronique tey bii. Euh, ñu ngi ko jëmale ci chronique solo di gërëm ñëpp di sant ñëpp di rafetlu seen teewaay ànd programme de Salam Vision ñu ngi waajal nag la journée internationale de la liberté bi ñu màggal euh, ñaari fan si weeru mai bu nekk euh, lan mooy cette journée internationale de de la presse dañuy sargal taskatu xibaar yi ci Euh, salam Vision nag dama fi créé dama lancé benn kuréel bu ñu wooyee à partir d'aujourd'hui benn kuréel bu ñu wooyee alerte aux médias mooy sama initiative bi ma pour mun a xeex lépp loo xam ni jëm na pour défendre ak xeex ñi nga xam ne jalgati jalgati mbirum tasum xibaar maa ngi ko tuddee alerte aux médias alerte du mbirum politique du association pour nga ñuy journaliste ni liberté de presse ni patron de presse samay xalaat bopp la pour mën a euh, tëral bu jaar bu démocratique bu mucc ayib bi nga xam ni képp ku may suivre ku ñuy suivre fii Salam Vision di si jëlee njëriñ alerte la presse euh, dina rendre hommage le 2 mai a des ténors de la presse ñi nga xam ne ñu sigil presse fii ci Sénégal ak ci àdduna bi demain ci Sénégal man dinaa rendre hommage de deux mai samay xalaat la fii ci Salam Vision kii di Sidy président fondateur du groupe Walfadjri bi ma ko xamee il y a plus de trente ans jamonoy jamono bi nga le feu Abdou Latif Gueye moo ko jiite woon ànd di xeex liberté de la presse muy démocratie ñoom ñoo fi nekk xeex euh, mbirum bëtiga mbirum injustice lépp loo xam ni day indi ay ñaaw ci réew euh, jamono ñoom ñoo fi xeex mbirum presse dina rendre hommage aussi à Abdourahmane Camara euh, du tasum xibaar de sa publication quotidien Walf Jean Maïssa Diop ñoom ay journalistes yu mag lañu Kid Babacar Touré président fondateur du groupe Sud Communication Amadou Mbaye Loum ancien journaliste par RTS Ahmed Bachir Kounta euh, mënuma lim ñëpp euh, ñi nga xam ni dañ doon liggéey presse seen réew sigil seen euh, seen réew nañu rendre hommage fii Salam Vision le 2 mai rendre hommage aussi à les organes de presse ñi nga xam nag ñu ngi def liggéey bu rafet liggéey bu jaayoo. liñ naan euh, ils ont instauré ce qu'on appelle le pluralisme de la presse une presse gouvernante une presse objective et une presse et une presse indépendante et démocratique euh, tey boo xoolee partout dans le monde euh, journalistes yaa ngi jóge en prélude à la fête du 2 mai ici à Salam Vision képp ku suivre. de prêter attention le 2 euh, c'est qu'alors la presse de les rendre hommage d'abord à travers un micro-trottoir, du aussi le groupe Al-Fadi, euh, le personnel, les journalistes, de réitérer notre confiance totale et indéfectible à Sylvain Minas et à tous les confrères Bouyembo Simirou Tassoum Kiba. Euh, sur le numéro de reporter sans frontières, bi ŋaññi Sénégal pour le retour de la presse presse bi bu ñu defoon daal ñu gën a dellu seen ñu gën a dellu ginnaaw Sénégal gis ngeen ni à travers les plateaux à travers certains comportements de journalistes ma ne liggéey bi ñuy gën di nasaxal di dellu nañu xoolaat li ñuy wax nañu xoolaat li ñuy bind te xoolaat aussi à travers l' internet c' les réseaux sociaux y a ce qu'on appelle les fake news ñiy donner de fausses informations. faisons attention à ces bandits, excusez-moi ce terme, et euh, ces terroristes la presse, c'est ce qu'on appelle terroristes la presse, attention, mais faire du tel réew di daan réew yàlla ñu sàll bu sell n'avions pas besoin de telle et de tel comportement occasion pour le demain euh, ñu mën a toog euh, weccu ay xalaat diisoo euh, génn ay solution yu journalisme Mais journalisme dit au XXIe siècle, ça risque de dénaturer et de défigurer cette liberté de la presse. Dafa doy nañu un rédaction yi nañu jàppale ndaw surtout les jeunes reporters qui sont sur le front di aussi euh, le gouvernement les responsables politiques kujje bi nañu bàyyi bi nasaxal di fontoo journalistes yi mbirum journalisme c'est de la passion et l'abnégation li ñu constaté ma ne à travers euh, li ma lancé parce que je tiré ko alerte aux médias suivre la la je m'adresse à tous les journalistes qui ma bëgg a contacter fii euh, au 77 716 63 10 77 716 63 10 ba woo ma si au 77 833 88 95 833 88 95 nga laajte Cheikhou Sakho euh, initiateur d'alerte aux médias pour mën a liggéey des confrères et des consoeurs pour ceux qui sont concernés ñu mën a toog ñu seet naka la arrêt presse di waajal cette journée internationale la presse qui prévue le 2 mai un sera rendu à Sidy Lamine Niass Babacar Touré Amadou Mbaye Loum la télévision Bachir Kounta euh, Abdourahmane Kamara Jean Maïssé Diop euh, comment dirais-je Ibrahima Fall qui était au soleil euh, ça c'est des Bara Diouf ancien DG du soleil ce sont des vieux des ténors charismatiques et indélébiles ñoom ñoo fi bàyyi dans le domaine du journalisme mesdames et en cette journée en prélude en cette journée mondiale de la liberté de la presse qui est prévue euh, le 2 mai prochain, nous disons, j'ai lancé une initiative qui s'appelle Alerte aux médias, a été ici euh, sous les fonds baptismaux, euh, sous la présidence et sous la bannière, nous disons, de ce site d'information Salam Vision. Salam Vision est un site d'information qui est là pour sensibiliser et conscientiser les Sénégalais et les Sénégalaises si su fekkente bilan économique politique sociale euh, environnementale et j'en passe c'est un médium qui est là mais qui informe juste c'est vrai nous ne sommes pas là pour euh, insulter donner de fausses informations ou de diffamer qui que ce soit nous sommes là tout juste pour informer en réalité ce qu'on appelle et respecter la charte des médias à alerte aux médias pour tous ceux qui nous suivent va rendre hommage à Sidi Lamine Niass, le père fondateur du groupe Walfadjri, qui était, qui était un génie, un homme de presse, un homme de foi, un homme d'agrégation, un homme sérieux, généreux, qui a laissé des traces indélébiles pour cette presse sénégalaise. Sidi en compagnie d'Aframan Tamara, Jean Messedio, Amadou Bayrou, la télévision, Bachir Kounta, Babacar Tous ces gens, on va les rendre ici à Orange en ce dernier, en cette journée internationale de la de la presse. Cette liberté de la presse est bafouée un peu partout à travers le continent. Des confrères qui croupissent dans les prisons, des confrères qui sont menacés de mort dans l'exercice de leurs fonctions. Nous disons trop c'est trop. Allez-y, en RDC, euh, nous disons au Burundi, partout les journalistes travaillent des conditions difficiles est exécrable. Il est temps de mettre fin à l'oligarchie, il est temps de mettre fin, nous disons, euh, à cette dictature de certains chefs d'État euh, qui continuent de manigancer et de menacer certains confrères. Alex Omega est lancé pour tous les confrères et les conseils du monde. Je rends cet appel et ce cri à tous les journalistes qui s'intéressent euh, à ce sujet de Alex que j'ai lancé à partir d'aujourd'hui pour travailler en étroite collaboration avec les journalistes et les consoeurs pour qu'il y ait une passe libre, sereine, indépendante et démocratique. Mesdames et messieurs, et chers confrères et chers consoeurs, rendez-vous le 2 prochain pour rendre hommage à ces journalistes, que ce soit au Sénégal, en Afrique et un peu dans le monde. Je vais prendre mon bâton de pèlerin. J'irai partout en Afrique, en Asie, si Dieu me le permet. Euh, si mon appel est entendu, hier Salon Vision, nous allons ensemble euh, creuser le fossé, ensemble bâtir une démocratique et indépendante. Mesdames et messieurs, à très bientôt sous, la, sous les bannières de Salon Vision à la présentation Cheikh Oussafo et à très bientôt.